الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه تيري تيربيدي داليا نيل الأماني من ولا قد رأت جسونا هند دوسني وحند فكانت تنكون موم هند موم غرة دي أجي نيك خل ما يكون خمني أمو التجربة بين برقم درا من قبل بنجكون lu mu gisoon anna nawal ahibati na teqalikoog soppi yi fii xadin ci suba la mu doon wax mbiru dee ci la jàllar bi nag bëgg du dugaat ci leneen mooy di wax teqalikoo gim doon teqalikoog ndaw soos ñuy wax hind hind bañ teqalikoo bi te moom mu gis ne góor dëgg bu bëggee lim bëgg foo mu dem mu ne fa tawassadat mu ngi gënaayoo shawkal qataadi déggu gom-gom xataat garab la goo xam ne dafa dégg yu mel ni pusa ñu di ko misaale bu ñu waxee chawkul xataat dégg gom-gom lañ ci na mooy mbir mu jafe maanaam hind ba mu yégee suba la war a tàqali ko soppeem yi te moom la ci namu hind dafa nekk ci mbir mu jafe ba mel ni moom na ngeganaayoo <coughs> wa ab tanat mu nëbbu jamral xadaa xalu ngoonaake maanaam xol baa nga tàng jir dégg nga ba mel ni xalaw garabu ngoonaaki moo nekk ci biir xol ba alxadaa garab la gu màgg gu rëy goo xam ne nii boo ko def boo ko boo ko defee matt ba taal ko xal yu rëy rëy lay xam dégg nga xal yu ngoonaaki kon dafay rëy maanaam hind mujj na am naqar ci biir xolam ngir tàqalikoo googu ba mel ne xolu ngoonaaki moo nekk ci biir xolam bu tëmal mu boddarndiku fil marqadi ci tëdduwaay ba <coughs> maanaam mënututa tëdd benn place mu ngay jàllar bi ku rek ndeyjoor ak càmmooy gannaaw ak biir ngir teqalikoo googu nara xam wa tawassana mu al alwajdu njàqare mana wala boog alwajdu njàqare alhamidu bi aji sonale mm, shagaafaha biir xolom dégg nga maanaam jamono bi nga xam ne mooy jamono gémmantu jot na euh, moom mënatu neraw ndax njàqare gu sonale moo dugg ci biir ci biir xolam dégg nga fastaalanat mu daal di feeñal moom hind mu feeñal moom hind bi talahufin ci ak njàqare wa tawajjudin ak ak tawat dégg nga maanaam tiitaange rek ba tey mu ne ba nga xamee ne tàqalikoo war naa tàqalikoo hind njàqare googu daal di ko dikkal bam mu demee ba war a gémmantu ci tàng rek daal di muur dafa feeñal nag ak njàqare ak ak tawar rek <laughs> ngir bañ ma tàqali ko moom wara nan mu ja ja mooy mu xool ma xool bu fixé bu sax bi muqulatin mut firin bi muqulati mut firin ci nagu bëtu njaaxal la bu ajaam doom mut firin mooy njaaxal boo xam dafa am doom mahrubatin bala bañ ruggi buñ ruggi mooy bañ jël xalfal xanu ci ca gannaaw rëbb ba li maa laha ñeexel ngir ñeexel la nga xam ne ñeexel na ko min farqadin ci doom wala cuuj mooy am doom rek mu di ma xool bër yu rëy mel ni njaaxal boobu nga xam ne dafa am doom rëbb bi ñëw bëgg a jël doom ja na koy njaaxal bi di xoolee noonu la ma doon hind di xoolee ngir bañ ma taqalikook moom wa tasawabat mu wàcc abaraatuha ay ronqañam wa tasaadat mu yéeg zafaratuha ay ajjatam ajjat mooy kàddu goo nga gis kuy jooy di ko def hmm, hmm, dégg nga di eh, génne ay nooxi eh, dégg nga loolu mooy zafaraat hajjat tasdu ma ngay jooru bi qawlati munshidin ci waxu aji saddu wayja te mooy naabixa naan laa marhaban déet yaatal bi ci suba walla ahlan déet ñu di ko dalal déet dalal ñooñ bi ci suba wa damu taron xañ ba yekk xalwaa mu ngi koy tusngal makaanal ismadi ci barabu bopp doju tusngal ba baragu barabu ba dégg mu ne hind ba mu xamee ne maa ngi waaji tàqalikoog moom dangaa gis ronqañ yi di wàcc ci suuf xajjali di yëkkatiku muy jooy daal jooy am kaddu ma ngay way wayu naabixa bu mu doon wax naan laa marxaban bi gaddin wala ahlan bihi in kaana tafriqu lahibati fi gaddin laa marxaban déet ndokkeel bi gaddin ci suba wala ahlan déet ak dalal bihi di ko ñaan ahlan mooy wàccal sañooñ in kaan nem nekk na tafriqu lahibati taqaliko sopp yi fi gaddin ci suba loolu la doon naabixa di wax naabixa nee ne bu fekkee suba laa war a taqaliko sopp yi yaataluma suba ndokkeeluma suba suba yàlla bu mu ñëw maanaam mu ne nag loolu la doon Hind di wax te jamono ba muy wax loolu ronqañ yaa ngi tusngel bëri ya remplace doju ba doj bi nga xam ne ci lañuy def moom la ñuy tusngeloo ci dégg nga ronqañ ba moo ko remplace ci tusngel bëri maanaam jamono bu muy wax loolu mu ngi jooy waaye tullu mu ngi ñepp ñeppal dégg maanaam mu ngi taw mu ngi mu ngi tallu mooy taw bu taw bu tuuti rek maanaam ma ngay tooyal rawdata waj na tey haa toolu lër baa moom ay ndenk tem ndenk teg nag moo di lex wal xayaa te taw ba nag <coughs> fi raw di ci toolu dër ba yun bitu mu ngi saxal kulla zahrin bépp tontóor wala fulóor ak yet yi bi aji nooy wala ak yet bi aji naat dégg nga nga xam ne ñooy toq ci lexu hind boobu moom la niroleeg ab taw buy ñepp ñeppal dégg nga maanaam ronkañ yooyu ñooy sax lex ba soppeeku ba mel ni fleur boobu léegi-léegi mu jooy jooyu yu yu yu yu tat ba mel ni ab taw dégg nga di saxal ci lex ba ak euh, euh, soppeeku lex ak ak zone ak ak xonq ba mel ni fleur dégg nga fariqat tiit na faan batat mu daal di saxal al bahaar a gàncax ak bahaar mu nawwiran dégg nga di aji e, e, def di aji génne tontóoram ya wa azaltuha ma yedd ko fa sabaxtuhu ma cuub leex ba bi tawarudin ci yore kulóoru wart wax na ne dafa jooy jooy léeg-léegi mu jooy nànk ba mel ni ñëpp ñëpp léegi-léegi mu jooy ci kaw ba dégg mel ni taw lex yi di xonq cor ndax bañ a tàqalikoog man mu ne waaye léegi-léegi tiitaa nga dikkal ko ba lexi zone au lieu mu xonqati lex yi dafay zone mel ni gàncax ak baxaar gu am tontóor yooyu ci laa ko yedd nag moom hind ne ko bàyyi lii nga nekkee teqalikoo mënul ñàkk mu dal di cuubaat lex ya xonq maanaam mu am kersa lex yi delluwaat ci xonq bi nga xam ne nii moom la meloon li mu bëgg a rek mooy tàqalikoo gi mu nar a tàqalikoo hind daf ko jàqaloo léegi-léegi lex yi xonq léegi-léegi mu zone dégg nga wa tabiitu ma nga fanaan moom hind tal sunu nii dima matt ci làmmeñam almalaama yeddaange laallaha amaana moom tas lem inaa sama buum aw tamallaku wala dana moom miqwad yi sama ommatukaay miqwad mooy la ñuy ommatee daaba mu ne hind ma may yedd ci làmmiñam comme jiit yu matte di ma yeddee daa nga yu metti ngir tàqalikoo gi ma bëgg tàqalikoo ak moom ngir lan ngir yaakaar ne yeddaa nga yooyu dana tax mu génne ma sama xalaat bi ma njëkkoon a xalaat wala mu moom sama buum gi ba <coughs> fu ko neex mu jëmle ma déedéet man moom foo ma dem wa tazunnu ma ngay njort ne taftiru dana baram dégg nga bi laxaa yi ci daange zuabati sama njubbu dégg nga taftiru lu ci ne moom mooy dana moom rek wa talinu mu nooyal min nii ci man mat na rumxin gannaaw ak xeej asladi bi aji dëgër mu yaakaar ne eh, yeddaange yooyu mu di ma def dana tax mu mën a moom sama njubbu ndax nit bu moomee sa njubbu tee ko fu ko neex mu jaaral la moom nag loolu la yaakaar waaye loolu nekk mu yaakaar ne yeddaa nga yooyu mu di ma yedd dana ci noyal sama xeej sama gannaaw a xeej bu dëgër bii maanaam sama dogu gi dëgër gii ba mel ni gannaaw a xeej jàpp na ne dégg nga dana mën a tax mu ma ci yeddaa mu noyal ko ci yeddaa sama dogu gi daal ba mel ni xeej bu dëgër googu yaakaar na ne bu ma yeddee dana mën a tax ma génn ca bañ a taqalikoog moom dégg nga dégg nga ma nga njortu ne tam xadu nii dana ma sellalal an nasihata laaya biir barratan ngit ak baax wa nusuuta laaya biir aawinatan ci ay jamono maqaalatu mutadi waxu aji xor rek la mu ne hindu mu nga yaakaar ne laaya biir yi laaya biir nan ma toogal bul dem yaa yaakaar ne loolu dana da dégg nga mm, laaxe biir gu sell la fekk xamul ne laaxe biir googu du laaxe biir gu sell euh, daf maa bëgg xor rek ba loo ma moo tax ma di ma wax loolu léeg-léegi nit dina la digal la daf laa am lu mu bëgg ci yow rek nee na loolu loolu laa gis ci hind mu yaakaar nag dafa baax di ma laaxe biir laaxe biir gu sell fekk laay wut ma biir dafay lal plan rek <coughs> dafa bëgg xor fa tusiru ma ngay nëbbu xas wan ak góoxit firtixaain ci dindi dax taaratan léeg-léegi wa taqulu ma ngay wax beneen yoon ne xaamir yi nëbbatul wa tarabadi waafal dégg mu ne léeg-léegi dégg nga mu di ma nax daal nax goo xam ne nii dafay feeñal leneen fekk am na leneen lum làq ci biir ndax bu njëkk dégg nga am na ñoo xam ne bu ñu bëggaan naan soow dañ laa nax ne ñu ne damaa bëgg dindi dax gi dax gi mooy diw ñor gi nga xam ne moo nekk ci kaw soo mi ñu ne moom lañ bëgg a dindi fekk dind wuñ diw ñor gi dañuy naan bañ nit ñi gis ne euh, yaakaar ne dañuy naan soo mi ñu joxe ko misaal ci képp koo xam ne ni dafay feeñal lu baax wala lu rafet walla dimbale fekk xam ne leneen lum nëbbu ci biir loolu mooy tusirru xaswan firtiga id mu ngi mm, dégg nga <coughs> nëbbu góoxit fa tusirru mu ngay nëbbu xaswan góox sooma firtiga id ci ne day dindi dax dax mooy koo xam ne dafay feeñal lu rafet fekk xam ne leen mu bëgg ci biir mu ne léeg-léegi mu di ma nax bëgg maa rëbbu bëgg maa fiit mel ni ku may digal arab yi dañ daan def bu ñu daan rëbbu bukki dañ daan ko xaamiri wa tëlëbët yi nëbbatul waafal fekk dañ ko bëgg dañ koo bëgg fiit dégg nga mu ne léegi-léegi mu di ma wax baat yoo xam ne nii dafay mel ni laaxe biir la waaye nag ay xor la ak ay pexe pour rek bañ maa génn sama sama sama tukki mi ku fii fegal yow hind xabaala ki sa gàtt xel gi laa abaala ki xamoo baay arab boo waxee xamoo baay lam ci nam mooy tagg wala ŋaññi fii nag dafa mel ni ŋaññi la mën naa am muy ku baax a baax ba mel ni baayam jur ko ndax ni mel ñu ne ko laa abaala ki yow dafa mel ni amoo baay parce que dafa mel ni kenn méritoo nekk sa baay ndax baax gi nga baax waaye loolu nag doy ndax nit lu mu baax baax war a am bàyyi nag dégg nga wala ñu namm ci ŋañ ñi ne laa abaara kii amoo bàyyi maanaam dangaa bon a bon a bon ba mel ni sa bàyyi jurul la ni sa bàyyi baaxee ak ni nga bonee dafa mel ni xamoo bàyyi xëy na loolu la ci namm fii mu ne ko ku fii fegal xabaara kii sa gàtt xel gi laa abaara kii amoo baay inna nii naka man awisul maraami aji jafe aji jafe sànni laa an nibaalil mufnidi ci fett ak aji <clears throat> fen loo yow hind li nga may digal nii nga xam ne ni sa gàtt xel rek moo tax nga di ma ko digal waaye waaye tee ndax man kat ku ma bëgg a jumloo bëgguma lottuloo da ngay gis ne man ku jafe laa kenn mënul maa fen loo wala mu naar loo ma wala mu dugal ma ci loo xam ne ay caaxaan la ku jafee dugal ci caaxaan la laa ar amu duma ma sàkku albawa derab <coughs> dégg nga ab der wala boog derab mm, doomi eh, gélem an nafu xabada bañ wal wala ara duma gis wa abi ki gëñ naa sa baay qaxqaata shinaani yëngatug mbuus ga aji ràpp mu hayit mu aji tiitloo ma mu ne ko laaramu duma bëgg wala duma duma duma duma duma duma duma sàkku man maanaam nit mënu maa nax ñaari léebi arab la fa joxe benn léeb bi mooy arab yi dañ laan def bu doomi gërëm deexee ñu bëgg a ratt gëlëm nga gëlëm nga du xam benn soow ndax gëlëm bu ko doom ji jegewut du joxe benn soow da ngay ratt ba sonn dara du génn waaye nag soo ko indilee doom ji mu jege ko rek da ngay soow mi commencé joxe boo rattee mu génn léegi nag bu dee gëlëm gi doom ji dafa dee ñu bëgg ko ratt dañuy jël deru doom ji wal si xetax def si yeneen ak yeneen ba mel ni doom ji la ñu jegee ko yaay ji nga gis soow mi commencé joox ñu commencé ratt nu leen neexee mu ne naxe googu man kenn mënuma koo ko naxee man du ma nangu deru gëlëm guñ wal jegeel ma ko rek mu mel ni doom te fekk du doom maanaam man kenn mënu tegal plan ba ma yaakaar ne lii dara la te fekk loolu dara man nit mënul maa nax yow hindu loolu da ngay def da may nax dañ laan defit band yi <clears throat> buñ laan sàcc gëlëm dañ laan jël <clears throat> mbuus bu ràpp daal di ko yëngal gëlëm yi dañoo gaawa a euh, tiit buñ ko yëngalee rek gëlëm gi daal di daw yeneen gëlëm yi topp ko bu ko defee sàcc bi mën a xommal gëlëm yëpp yóbbu leen ñuy daw daw nànk-nànk ndax buñ buñ ko takkalee gëlëm gi mbuus googu muy yëngatu gëlëm gi dafay tiit ñu commencé daw ñu topp leen nànk-nànk yóbbu gëlëm yëpp mu ne ma loolu kenn mënu mu koo naxee yëngatu mbuus mënul maa tiitloo maanaam kenn mënul maa xor ba dugal ma ci loo xam ne nii ay caaxaan la ak ay pexe ci wax yoo xam ne nii wax yu tegul fenn la wax nii na nga taxoog xayaa ki sa kerse gi inna nii naka man ani ful laxaa ani ful lexaa aji jomba ñaaw laa noonu lañ koy firee léeg-léegi waaye anif mooy koo xam ne dafa am lu muy jomm am lu muy bañ anifa ani shey mooy jomm na mbir moomu allixaa mooy lu xeebu lu suufee lu tuuti ama man ci ci jege wa armi damay sànni lil jëli li jëm ci lu màgg la al aqmadi la kenn mënul xegg wala al aqmadi la aji rëy <coughs> dégg nga maanaam mu ne yow jigéen nga jigéen dafa war am kersa kon xamal sa kersu googu te nga bàyyi nag wax gi may wax naan ma toogal bul dem man foo ma dem wuti ndax góor dëgg dafa war a tumuranke man kenn mënul maa dugal ci mbir mu suufee maanaam man lu suufee bëgguma ko du ma ko xuut du ma ko sàkku du ma wax ne xam naa nangam rek doy na déedéet li nga xam ne ñaareel kenn mënul faa xegg mbir mu rëy la mu màgg la toujours man fa laay teg sama bët fa laay sànni sama bët maanaam man toujours rek ci mbir yi gën a rëy mbir yi gën a foor yi nga xam ne nit ñëpp dañ dañ dañ cee naagu pour xam ko man yooyu laay wuti waaye nag yu suufe yi yooyu moom jomm naa ko wa axus dana ma sojjal sojjal mooy dana ma dana ma eh, dégg dana ma ñaax ay si sama gëlëm bayna muhajirin ci diggante ñay ñe bayna muhajirin ci diggante kay dox njolloor wa mu arrisin ak aji kay tërtërloo tërtërloo mooy kuy wàcc ci mujj guddi wa na mu sawibin ak diggante kuy wàcc eh, dongo wa mu saidi ak kuy aji eh, yéeg dongo <laughs> dégg nga mu ne man damay ànd ak nit ñi nga xam ne dañu wuti teraanga wuti teraanga comme ñoom ñay dox njolloor muy digg bëccëg boo xoolee yaa ngi ma gis ma ngi ànd ak ñoom ma ni di dox pour wuti teraanga ña nga xam ne ñooy wàcc ci mujj guddi ga ngir noppalu boo ma xoolee dañ ma fa gis pour wuti teraanga ñi nga xam ne ñooy wàcc ci dongo yi dégg nga wala ñooy wàcc ci biir xur yi boo ma xoolee nag ma fa gis ndax damay wuti teraanga comme ñoom ñooy yéeg ci dongo yi ngir wuti lu baax soo ma xoolee dañ ma fa gis ndax damay wuti teraanga comme ñoom li mu bëgg a wax daal mooy moom lay nit ñi di daj ci coono pour am lu baax loolu lay daj waaye nekkul fii rek ci wetu ndawam soosu te du tàqali ko moom benn yoon dégg fayn sanat bu delloo moom gëlëm googu bil xun mi ànd ak koom fa hiya moom xariyatun aji yeeyoo la ko aw ak faqat wala mu soy ñi di ko firee wala mu kukku kukku mooy sooy maanaam perte yow man aw bis falastu nekkuma bi aw xadi di aji wéet ci loolu dégg nga dafay wax hind ne ko yow hind sa kersa googu bul ma xaaye wuti teraanga man yu suufe yi ak yu tuuti yi dama jom mu di ci nekk di le dafa yomba xam jege lool loolu mooy ama man ci jege yu suufe yi lum yomb yomb man awma ci soxla li may yittewoo mooy mbir yu màgg yi nga xam ne nit xegg ca dafa jafe danaa ànd ak ñi nga xam ne ni ñooy tukki ci bëccëg yi ak ñooy tukki ci guddi yi ñooy wàcc ci xur yi ñooy yéeg ci dongo yi maanaam dana am góorgóorlu ak yitte ba yegg fi ma bëgg a sama gëlëm gii nag may war su ma andilee koom maanaam tukki moom bu ma si jëlee koom dëgg-dëgg xeeyoo naa ko dégg nga ndax ku góorgóorlu war a am li nga bëgg suma ma dox naa ba sonn am na yitte ba sonn waaw ma dara ma xam na ne wuma ko rek man li ma war mooy def def naa yow di bàyyi ma man ci loolu la nekk wala xadi taxistu jàpp naa wadaa ixwaani tàqalikoog samay mbokk axan mu di mbokk xilasan buy aji sell walay te yellantikoon wafaahu matal matalak kóllëreem lam yëlkët yi du sax lisaan mu ne man tàqalikoog samay mbokk mooy sama mbokk sama mbokk mooy tàqalikoog samay mbokk sama mbokk bi gën a mbokkoo ci man mooy tàqalikoog sama mbokk mu ne def naa ko de waaye du doon laa bëgg waaye nag xam jom moo tax ma def ko moo tax mu ne yellantikoon mbokk moomu matal kóllëreem googu du sax maanaam tàqali koog sama mbokk yellante koon sama kóllëre rek moom du sax ndax doomu aadama bëgg toujours rek mu di tàqali koog ay mbokkam te moom loolu la ko yàlla nattoon ngir am jomam <laughs> moo mu ne yellante koon kóllëre rek tàqali koog sama mbokk du sax woo meextu sopp naa waslahum jokkoog samay mbokk fa arada mu woon ma gannaaw moom mbokk moomu jaafiyan di aji beccingal abidan di aji mere alayya ci man walay taxu yellante koon moom lam ya bëri du ma mere dégg nga dégg nga ndeysaan dégg nga maanaam li mu wax mooy saa yu bëgg a jokkoog ay mbokkam euh, nekk ak ñoom dégg nga tàqaliko googu daf koy daf koy daf koy aaye ndax daf koy beccingal mere ko dégg nga ba mel ni moom dootu mën a ànd ak ay mbokkam maanaam saa yu bëggee ànd ak ay mbokkam rek du ko man ndax am na beneen xarit boo xam ne nii moom lay taqoog moom lay àndoog te mooy tàqalikoog ay mbokkam saa yu bëggee tàqalikoog ay euh, toog toog ay mbokkam jokkoog ñoom rek xarit bi nga xam ne mooy tàqalikoog mbokk yi ne ko déedéet loolu du fi amee dégg nga loolu lay wax foofu ne saa yu moo soppee jokkook samay mbokk moon ma gannaaw mere ma yellanti koon du ma mere maanaam yellanti koon mu bàyyi ma ma samay mbokk yooyu waaye daf may wan gannaaw mere ma ba ma ko mën a ñàkk wuyu ma wuyu ji waat ko li mu bëgg wax saa bëggee toog du mën a toog ndax bëgg tukki ak am jom kam ñaata dëkk la laa tàqalikoog wa xibbatin ak ay soppe wa daantu laa tàggu an wuddin si cofeel safaa gu wa tawaddudin ak xëcci mbëggeel ñaata dëkk laa tàqalikoog te dëkk la yoo xam ne bëgg naa lool doon feeñal sama mbëggeel sama digganteeg dëkk boobu ñaata soppe laa taqalikoo tay soppe lañ yoo xam ni bëgg naa leen ñu bëgg maanaam dafa bëgg wax ne dégg bëri na dëkk yum tàqalikoo du dëkk boobu moo tax waaye am jom rek tax bëri na sopp yum tàqalikoo du bañ sopp yooyu moo tax waaye am jëm rek moo tax tawaddud mooy feeñal mbëggeel rek bu ali fi sidqin xarit bu dëggu lam ubaali faalehuma wala boog wa ali fi sidqin bëri na xarit bu dëggu woo xam ne lam u ubaali faalehuma firaaqahu taqalikoog moom wa naxiibahu ak dajjatam ya ajjatom ya ajjatu mooy jooyam yu tat yooyu bay ikket xalfal mataaya ci gannaaw waruwaaya alwuxadira ji gaaw <clears throat> mu ne bëri na xarit boo xam ne sama xaritoog moom karit gu dëggu la keroog bu may tàqalikoog moom faalehuma tàqalikoo googu keroog bu may tàqale ko moom muy jooy bay xikkéet ca gannaaw war waay yu gaaw ya faale xuma loolu damaa dem rek mm, dégg nga ndax am jom woo ma day tu way naa man ca kanam maanaam gersu moom maa ngi dem rek wal asaata njàqare ba waqdul juza taxalab géléeg la géléeg mooy ab matt muñ taal fa fasaatu ma damm fawratuhu ak jéqeem bi fadli tajalludi ci ngëneelu sama dëgërlu sama xarit yaa ngi jooy ngir tàqalikoo gi may tàqalikoo ñoom man mu wëy rek mel ni faalewuma leen te nag njàqare gaa ngi taal matti eh, gili ay gili gi safara maanaam ay matti safara ci sama biir xol waaye dëgër dëgërlu ci laa dammee <coughs> dégg nga matt yooyu yëpp ba mel ni sama xol bi dara ci njàqare nekkul ci mu lay wane xataa ka an nii ba mel ni man maa wajattu fekkuma bi mawqifi si sama taxawaay boobu wala boog maa wajatu yëguma bi mawqifi si sama taxawaay boobu alaman na waa métti taqalikoo wa xusaamuha te jaase ta ta sànqam wala jaaseem ya fil ak bu di ña ngi ca res ya dëgër dëgër lu googu tax na mu mu mel ni jàquma te fekk jaase njàqare mu ngi dagg sama res waaye am jom rek moo tax mu mel ni loolu yëguma ko boo bëggee xam na ndax jàq na am déet laajal tàqalikoo gi wal bayna tàqalikoo gi wal baynu tàqalikoo gi yàlla mu dana xam wa sababatu soppe gi sopp bi yàlla mu dana xam maara la nga xam ne ni danaa ko gis dégg nga wayn tasal boo laajee almadaami aronqañ yi te chadu dana seede minu ci loolu mu ne tàqalikoo gi may tàqalikoo samay sopp wóor na ko ne jàq naa sopp gi ma leen sopp wóor na ko ne jàq naa boo laajee sama ronqañ yi wadd danañ la seedeel ne am naa njàqare waaye nag dama di jàmbaar moo tax damay dëgër dëgërlu ba sama njàqare googu kenn du ko xam lu mooy yooyu dégg nga dégg li mu wax daal mooy mu ngi tàqale ko hind mu ngi mel ni amut ci njàqare fekk am na ci njàqare waaye am jom moo tax mu mu dem asirku dëggu min nii aji tukkee ci man wala faaw matal kóllëre sa jiyatun sama bindere la li axi wala faaw matal kóllëre li axi ñeel sama mbokk sa jiyatun bindere la wala su nekk ma bisil widaadi di borom ak cofeel al musmiri bi aji xont xont mooy lu tuuti cofeel gu tuuti mu ne man ku dëggu matal kóllëre dafa mel ni yàlla ma ko bindee rek mënu ko ñàkk def ku ma bokkanteeg rek danaa matal kóllëre ci moom yoruma cofeel gu tuuti googu nga xam ne nii dégg Mm, lu gaaw a dem lay doon su may sopp damay sopp sopp bu baax in raaxa nem jàllar bi ku na zuwu din borom ak cofeel falastu nekkuma biraa i xiin di aji jàllar bi ku aw jadda wala mu dagg xabla i xaahi bu mu mbokkoom lam aj du di du ma dagg buum ga dégg nga nit ku ma bëggoon su jàllar bi ko amatul cofeel googu ngir intérêt àddina man du ma jàllar bi ko ngir intérêt àddina buumam mbokkoo gi su ko dogee man duma ko dog dog ndax ko am kóllëre la wa in aaqadu su ma fasante kóllëre lam takun du nekk un tan di lam takun du nekk uqadi samay pas-pas un suutatan di fasu reccentel fasu reccentel mooy fas boo xam ne buy xëcc mu dañ wala usharan déet bantab tabanaane mustaw mustawqadi ci sama taxal ci barabu sama taxal dégg nga xam nga bant yooyu banta foftoon lay doon xamul benn njëriñ booy taal rek daanaka mu takk ba jeex takk mu ne suma ma fasante kóllëre sama fas gi day dëgër waaye du nekk fas gu oyof bu mel ni fasu reccantal su may taalit bant yu dëgër laay laay laay nga xam ne matt dëgg fay nekk waaye du nekk bant yi faftan yooyu nga xam ne day day gaaw a yàqu li mu bëgg wax mooy mooy moom kóllëreem ak doomu aadama yi damay nekk kóllëre gu dëgër wa xafistu wattu naa aadal wuddi dégg nga kóllëreeg cofeel xay su na at saa yu bii ci moom daarum kër was tabqi damay sàkkoo desal alwara mindee fi bi taawudi ci nemmeeku maanaam ki ma am ak cofeel su demee ba këram sori sama kër ñu sore wante faraa gën a sàmmee kóllëre googu duma wax ne nekkut fii déggul ma gisul ma rek lu ma neex ma def wala ma wax ko déedéet bu ma demee ba sori ma ci laay gën a sàmm kóllëre mbindeef yi dama leen di nemmeeku mbindeef yi nga xam ne am naa ñoom kóllëre toujours dama leen di nemmeeku di xool mm, ci eh, liñ nekk wala boog damay nemmeeku sama mbëggeel sem sama diggante ak ñoom ak teraanga ji nga xam ne ni war na sama diggante ñoom toujours maa ngi koy nemmeeku di ko yokk waaye du wàññeeku wala ruba mazaqin bëri na ku njar cofeel dégg nga ma dàq mooy ku boole ndox soow lim ci na moom mooy ku ñar njar cofeel nga xam ne bëggut abaana feeñal na firaaruhu gëstoom naa nekk firaaru furaaru faraaru musalasul faala tuula layaali yàgg guddi an dabaabin ci soxor lubbat yi bay aji sax mu ne bëri koo xam ne dafa daf maa won cofeel goo xam ne nii du dëgg waaye nag yàgg gi ma yàgg ak moom moo demal ba xamal ma ne ma ki soxor soxor gu sax ci xolam loolu la ma ëmbal waaye amul benn cofeel bu jëm ci man dégg nga dégg nga furaar mooy génne gi ñu daan génne ba pour xam mag naa magut loolu gëstu la daal maanaam yàgga gi ma yàgg nekk ak moom moo ma xamal ne euh, soxor gu tar moo nekk ci xol ba waaye du génn dabaab yamu dabb muy alxiqdu wal xaysu ak mer fa taraktu ma daal di dàq saa imatal hawa dégg nga jur gu booy gaa moom mbëggeel la an martain ci saawo min wuddihi ci cofeelam mustawbalin ba da bañ diislu mustawbadi ba da bañ ñaawlu mu ne ba ma xamee ne amul benn cofeel gu nekk ci xolam mbëggeel gi nga xam ni moom moo doxoon sama diggante moom ci laa ko rocci nànk bàyyeetuma ko muy sàmm ci caawa waay jooju ndax sàmm ndax ci mbëggeelu waay jooju ndax moom mbëggeelam mbëggeel gu diis lu la lu diis lu mooy loo xam ne dëppoo ak yow mbëggeel la it goo xam ne nii gu ñaawlu la parce que du mbëggeel waaye xor la dégg nga dégg nga ci lewet weex daan ak lamsal sa xaa ay comme lem ak mbuus ala balaalati ci tooy tooyam almunfid tey wala boog tey saqaa yi comme la mag mbuus ay yi comme la mag mbuus almunfid yi baa ji fëgg alaa balaalati ci tooy tooyam xam naa ne waa ji <coughs> amul benn cofeel ci man amul benn mbëggeel ci man di leen mu ngi koy wane waaye daal man dama dama dama dama lem sama digganteeg moom cig lewet dafa ma ko ci euh, doole dafa ma ko ci xiir dafa ma ko ci mm, xiis waaye dama ko def ci lewet dégg nga ak jëlale mel ni xaw ma lim nekkee fekk maa ko gën a xam waaye daal sama diggante moom damaa xam fu ma yem ak moom mel ni mbuus goo xam ne ndox mi dafa jeex nga lem ko nànk ci ak tooy tooyam noonu boo koy lem ni nga koy lemee nànk ma ne noonu laa lemee sama cofeel sama diggante moom inna zujaaja naka biteel isa tanaawalahu ndem jottalu na ko ndem jottal ndem xëccoo na ko alfataa waxambaane ana fan ci force te sa daan mu dagg dégg nga sadaatan ak tasaddaa daamu xotteeku sa sadaatan xotteeku xotteeku goo xam ne lam tukkale di duñ ko mën a ñawati mu ne biteel bu ko ñaar xëccooyee ci force dafay toj toj goo xam ne dootuñ ko mën a ñawati moo tax it su may bàyyi nit dama koy bàyyi ci teey ci nànk ndax bu indi jafe yoo xam ne kenn dootu ko mën a defarati way nit tasaa ndem wax na wax ju ñaaw ax daytu ma jëllale an awraa ci ay ayibam maa lil karimi dédd ñeel ku tedd min yedin ci benn kaddu ci benn kattan alal bazaati ci génneelu ñaaw mu ne kooku nga xam ne dégg nga <coughs> ab noonee la ma ëmbal dana wax wax ju ñaaw mu jëmee ci man waaye su ko defee rek dana gis ma jëlale ayibam googu mu nekkee mooy kaddu yu ñaaw yooyu ndax man ku tedd laata ku tedd amul kàttan ci wax lu ñaaw moo tax su waxee lu ñaaw du ma ko delloo lu ñaaw waaye damay jëlale ba mel nii دو من لا وقت مم لا واي وخون وفرع وراء الكريم ادخاره واعرض عن شتم اللئيم تكرما جيغلل اي بو كو تد ناخ دنتي من غو سوخلا واي نيت كو سوخور جيكي دي خسانتك موم ترال سا ولقد حلبت رتنا الدهر جمانو شتري نياري والامي وقد درت جوخنا عليه تي jamiu asnaafi sudi mbooleem xeeti ween yi jamono daal xam naa lu neexam xam naa lu naqadeem bu doon ay ween la xam nga ne ween wu nekk tabe na ñeexal ma ma ca sooma naan ko maanaam dafa bëgg waxindi ne ko man xam naa jamono ak ni muy doxee yépp kon fa araftu xam naa maalam taarifi loo xamut wa samitu dégg naa maalam tasma'i loo déggut wa shahidtu seede naa maalam tashhadi loo seede wut kon bul di ma jéem a toogloo baay ma ma dem in uridul islam wastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh